doyen de justice laaj bu ñu ko laaj mu daal di si ci mbir mi nga xam ne moom la ñu tuumal Ousmane Sonko mooy mbiri Adji Sarr yi journal bi nee na ki nga xam ne mooy jëkkëram moom tim démb la ko waroon a déglu waaye nag ko xëy dañu xibaar naa ñu Ndeye Khady Ndiaye ba mu jàkkaarloo ak doyen de justice daan nay seddal Ousmane Sonko ba mu set wecce moom Ndeye Khady Ndiaye tudd kilifa ci réew kilifa yoo xam ne ñoo ko doon wax naan ko nañu la jox xaalis ngir na nga daal di soppar ñi li nga xam ne maanaam moom nga waxoon maanaam nañ la jox xaalis daal nga tuumal Ousmane Sonko waaye nag moom Ndeye Khady Ndiaye nee na loole def koo lànkoon ba sa naaj wa journal bi nee na xam ne daal moom la waxoon ca gendarmerie section de recherche amul lenn loo xam ne daan na ko ñuy soppar ñi yéen a kaay gi de Les Échos moo xëy di ñu ko xibaar libération moom tim di ko dëggal yéen a kaay gi de la Soleil daal di wax ci BRT bi maanaam liggéey yi dina daal di jeex ci weeru décembre atum 2020 lan moo tax nag état bu Sénégal jël ko jox ko groupe Méridien loolee maanaam leeral nañ ko ci biir journal bi de la Soleil yéen a kaay gi de la sa njiitu réew mi di président Macky Sall nee na njëg yu yokk yi guerre Ukraine yi nga xam ne na ba maara day tali ci réew mi bi nga xam ne moo am Ukraine ak Russie moo waral njëg yokko yéen kaay gi de la Soleil moom na nag jamono ji maanaam jàmp na nga xam ne daal ñëw riche ba jéggi tayu daal di nag nga xam ne ñooy waa Banque mondiale dawal yërmande ngir nag wi nga xam ne ñoo sonn ba a génn nag ci crise bi yéen kaay gi di réew na ñi nga xam ne ñooy société civile bi tey ji danañu daal di amal nag doxam ñaxtu ngir nag lànk ba tëdd sa naaj wa lu jëm ci wàllum parrainage bi yéen kaay gi di source nee na boo muy tuulee tey ji maanaam jàppante dina am yéen kaay gi di direct news xëy di ñu xibaar naan ñu Omar Gueye mi fi nekkoon maire bu Sangalkam docteur Cheikh Dieng mi nga xam ne jàppoon na ne moo gagné ville bu Pikine ak nag Ismaïla Madior Fall nee ma sa tënge ñett ñi maanaam dañu nag defoon ab recours dem ci cour bu Ndakaaru ngir nag kalaame ci élection locale nga xam ne moom la ñu génn waaye nag seen kalaame boobee nag maanaam leen koo gàntal la ñi nga xam ne ñoo handicapé jigéen ñi amee laago ñoom nee nañu maanaam élection législative yi bu ñu leen investirul ñoom jigéen ñi ngir nag ñu jéem a nekk député maanaam dañuy boycotté li nga xam ne mooy élection yi jigéen ñi handicapé ñoom nee nañu ñoom ci réew mi lañ bokk te nag ñu bokkee ci réew mi dañu leen a war nag boolee fa ñuy kaasalee waa réew mi nee ma assemblée nationale moo tax daal en tout cas femme handicapé yi ñoom nee nañ bu ñu leen investirul ci les législatives yi ñoom dañ koy boycotté yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xibaar naan ñu ay sëtu Seydi mi nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon nag jaburu Jóob Iseg moom ma ca kaso ba bind na la ko waral mooy dañu koy tuumaal ne dafa def ay njuuj njaaj ay léexoora ci nag kër goo xam ne daal Jóob Iseg moo ko moom kër ga nekk ca Sacré Cœur yéenekaay gi di bés bi xëy di ñu xibaar naan ñu nag ñi nga xam ne ñooy armée bu Sénégal mbooleem base yi nga xam ne Salif Sadio moo ko ngar daajoo woon armée bi nag nangu na ko toll na si juróom-ñett ci ay base rebelle yéenekaay gi di la témoin nee na armée bi dafa raatale mbooleem fi nga xam ne Salif Sadio ma nga foona am na nag benn soldat boo xam ne rayaat nañu ko waaye nag bëri na ay rebelle yoo xam ne faat nañu leen journal bi di enquête nee na braquage daan nay am ci diggante Marsassoum ak Bajure yéene kaay gi nee na ci route nationale numéro 4 bi ay samba boy yoo xam ne ay arme yu garaaw a garaaw yu doy waar la ñu yoroon yéene kaay gi nee na nag kilifa bu yaana mar ak jabarama si ñi ñu karoon sa la ñu bokk yéene kaay gi di enquête nee na en tout cas mbirum bandi mi mbirum Samba Sura Bali bi braquage bi daan nay commencé waata yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar mbir mu doy waar a doy waar moo xam ne nag atte nañ ko démb ca tribunalum Dakar ndax dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dafa amoon jëkkëra jëkkëram nag dem tukki dem bitim réew yàgg fa lool def na fa juróomi at nag diggante boobee yépp nag ma ngi àndoon ak beneen xale bu góor a doon nag ma ni ngàññam journal bi ni na la nga xam ne nag moo ci doy waaram mooy moom xale bu jigéen boobee naka rakku jëkkëram bu jigéen jëkkëram moo ko doon tëddee mbir mu compliqué mu doy waar a doy waar la waaye nag moom xale bu jigéen bii nga xamante ni jëkkëram dafa tukki woon nag muy mooy ci ginnaawama bi mu déggee ñu ne jëkkëram nag ma ngi ñëw dafa jugee yëmbal gi nga xam ne fi la nekkoon ci Dakar daal di nag daw Touba ba demee nag ba mbir mi nag daal di siiw lool mu mbir mi yóbbu ko fa mbaxana doonee benn ne dañ koo jox loo xam ne nag dafa tàggoo woon ak sagoma yéen kaay gi na mbir mi nag tribunal la teeree ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lañ leen di létt wala nag ñu daal leen di firee yéen kaay gi na mbooleem li nga xam ne defoon nañ ko ci ay rapport sexuel maanaam bi ñu doon ànd loolee lépp dañu ko filmé woon yéen kaay gi de la tribunal nee na forum mondial de l'eau ñoo amal nag ci diiwaanu Ndakaaru waaye nag yi nga xam ne ñoo ñoom te mer nañu ba maara de tali ndax nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dundoo journal bii de la Tribune xëy nag samp ab laaj nee na forum mondial nga xam ne moom la ñu amal ci diwaanu Ndakaaru ndax nag maanaam mën naa ndi solution ci jafe-jafe ndox yi nga xam ne moo am ci réew mi yéen a kaay gii de la sa xëy dañu xibaar naan ñu Sénégal moom Sénégal lan la mënal boppam yéen a kaay gi nee na lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi nee ma médicament yi lu toll ci quatre-vingt-quinze pour cent bitim réew lay jugee maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent ak juróom yëpp ci ay garab bitim réew